tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub sunu borom yàlla yàlla defar ci sëy waaye fifti amal ngay fifti na leer moo ni cër bi li tax ma ko doon waali fekke ko mooy ku am waay xam si sa tool ci man mën a jëkkee nee na ci moom la jëkkee amul bi ñoom ñaar ñooy xarit ànd ànd yàlla moo waral kër bii mu bëggoon pour li def dara mu fekke yàlla yàlla def na yuusu tam ana yuusu tam nee na su nee na su yuusu teewee rek waa teew ana yuusu yuusu kaay yuusu teg waaw mi ngi nii mi ngi nii waa lay ngoog waale boog bàllal na de dara soose bàllal nu de sunu borom ay joxe cër diw la ñuy seenu tey yàlla koy dogal waaye diw la ñuy xaar yàlla moo koy dogal na ñëw rek moom directement na ñëw rek moom directement C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. ndax sax yaa ko jàppale yaa ànd moom ba du dara doyal ko ànd moom ànd bu sincère. jërëjëf na yàlla guddal sa fan. alaaji ma ko benn.

amiin ya rabbal nangu leen ñaan fu waay kal nangu ñaan dañuy teg ci place xam na la te kooku su waxee ci waali ku ne dana ko mën dégg kooku mooy Umarou moom la ñu jox kàddu gi mu sant ci yi asalaamaaleykum kilifa yi yi du gudd président ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la jox sa mucc ak wér Amady Gueye fii ci jërëjëf ñu fi teew lépp ba leen bëggee lim dinaa bi du ko may waaye dafa am lu mu ñàkk muy ay muy naan si barab tey bi Cheikh Ahmed Tidiane lii ñu seere nag ñu suñu may la ndax damaa seetlu naa it daal di wax fii naa lu may wax ci biir dund boo dee di ko wax Cheikh Tidiane xale la boo xam ne tey bu président defee déplacement def changement ànd ak une forte délégation maa ngi seen sama nijaay Alaaji Yusuf Dey maa ngi seen sama papa Alaaji Tumaani Ndiaye sama papa Alaaji Ndao Mbaye tubaarkalla kenn deful délégation xale bu président waat nekk une forte délégation en tant que Serigne Fallou Mbacké soo bàq soo Serigne ñu ngi ci teew lépp loolu di ko boole. président national yooyu ba set ba set ay lois diggante bi ñu nekk ak bi ñu dëkk ak bi ñu yóbbu ba mu ñëw partout 15 de temps. bu barkeel yàlla may ko soxnaam may ko njaboot bu barkeel may ko njaboot bu góor ak bu jigéen ñëpp ay jullit te ñu jël siraatal mustaqiim yàlla mën na ko yàlla ko def président de seen nit ku nekk nit ku commencé yaasa xam ne mooy seen doom jébbal ko ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane président waa li nga amuñu sa fay di leen sant di leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. léegi nag lu may waay mu dugg ci biir kër gi xool suñu soxna su paree nag mu dem ko xam ni macha allah mooy mooy jëkkër ga jëkkër su ko. lay nuyu. délégué Amar Sarr waa ji liggéey la. coono yu bëri na xam ni mooy chef seen. eh doom nday. mais eh, yow lu xew. eh mince. lan moo la dal laa bëgg a xam. bu ngi ko gis. yow nga jàngaram doo tët. wóor ma waa ji ñun xanaa tama sabar ngay àndaal. bu ngi ko gis. xam naa ngaram doo tët. Maria Siddiq may ma exclusivité waay lan moo daal eh, lan moo la daal donc kii dañ ko kii da ah. kii dañ ko kii ah. da non daa gaañ ñu Mass sa waa ji lu ko dal barke El Hadj Malick. waaw gore. mais Mass Mass bàyyi ko moom ko dal. doon protéger Wally mais Omaro. délégué bëgg na waa Wally Seck. lii Wally la naroon dal lii Wally la naroon dal mu dal ko. di bëgg na Wally. <laughs> mais Baye Zale ki bëgg na Wally ah lii Wally nga naroon lii Wally la naroon dal ah kii dafa bëgg Wally ah non lii foog ñu traité ko Amadou mais Amadou gars bi foog ko Amadou ma Tijani sama waay la jàmm ñal jaara busu wala ma sebi jaara